waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah mbokki julit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo rajo télévision bu wal fajri maa ngi leen di nuyu fi ma len daan nuyoo nuyu leen ci baat yi ngeen miin yi ma leen daan nuyoo di ñaan juróomi baat yooya ëmb yërmande yàlla ak jàmmam yàlla na ko yàlla dotti ci seen jëmm yi ak suñ jëmm yi dotti ko ci réew mi ak réew yi jullit ñeeg àdduna bi yépp boole defal ñu jàmme àdduna ak ju àllaaxira maa ngi ci ñeen fukkeeli sariyatu ak ñeent yi nga xam ne sayiduna muhammad yebal na ko ay jaraafam ay sénéralam ñiy fayu ak tooñaange ak di jeexal tooñaange ci kaw suuf ak di delloo tamit ak tooñaange sariyatu bi ukaasatubnu muhsini la yenentu bi yónni woon ci jinaa bi su ko defee abu ubayda ak aboubacar ak omar ak saadu ak saïd ak salmatum nu aslama xataadatum nu noxmaan ñëpp nekk ci gannaawam mu ne dem leen ngeen xeexi waaye nag yàlla dogal feebar bi daane yonantu bi a avant dem yonantu bi dégg munaafiqiina yi di wax naan xale bu ndaw bi naka lay mën a jiitee mag ñi en même temps muy nit ku ñuul xam nga dañoo xeeb nit ku ñuul yonantu bi dagale leen ci jàkkaam jàkkaalahu jël maanaam euh, darab ba Euh, euh, làmbaayoo ko ne lu ma dégg ngeen ni tëbb kii nii ci pal gi ma ko fal lu ngeen ci wax ci moom rek waxoon ngeen ko ci baayam bu baayam xëyoo njiit nag moom doomam ji xëyoo na ko kon nag gaa yi ne mekk ñëpp noppi yàlla dogal yonent bi feebar ba daane ko mu tëdd ko fukki fan ak ñeent wuy ji boromam Aboubacar toog ci même weer wa avant muy dee muy weeru gàmm yonent bi génn àdduna ci la jiraat drapeau bu ne du ma la dénk dara lan lañ la waroon dénkee yonent bi dénk na la ko. su ko defee daal li ma lay xamal man dama lay ñaanal yàlla rek maa ngi lay dénk yàlla ci sa diina ji ak sa kóllëre gi ak sa mujj ak mbir yi déggoon naa bi dénk la kon nag gaawal nga dem ci abna boo demee yàlla nga lokki foofa su ko defee fa la dem rey seen sang ya ba rey créalé baayam yàlla may ko fa victoire bu mag keroog ba muy ñëw ñetti junne nit la toona ba muy ñib si madina gi génn buntu ba ci di ko tertu ba melni ni rek tabaarakallaahu victoire bo xamni ken kenn ko koo ak dara mam Khalifa nak fi la xare yi jeexee ak saraya yi ak ñi doon yonentu bi di yonne nona motax mune hunantahal buusu wa saraya bi hamdi rabbi mujj si lil ataaya la ka des nak mune kon dana la tuddal li dik ci téré yi ci délégation yi dan ñëwal yonentu bi sallallahu alayhi wasallam motax mune wal nazkuruhu wal nazkuruhu ma ata fil kutubi minal wufuudi li jamiil arabi léegi nag wufuud yi laa bëgg a jàng ak yow benn par benn délégation ya doon di fekk si yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ca madinatul munawara mbooleem délégation yooya benn bu ca nekk ak lu ko tax a jug danaa la ko wax délégation yi daan ñëw di fàq si di fekk si yonantu bi ñii di tuub ñii di fasanteeg moom kóllëre fanweri delegation la ak juróom ñoo mësa fekk yonent bi ci Madina fanweri delegation ya ak juróom yépp maam Khalifa Niass wax nañu ko delegation bu ne ak ko jiite delegation bu ne bañ ñëwee lu ñu wax bañ waxee leen yonent bi tontu ak seen jëflante ya lan la bu ca bàyyeekoo nag door a tudd leetar yi nga xam ne yonentoo ko bindulu ay secrétaire am ko ci loxol ay ambassadeur ñu yóbbul ko ko ci mbooleem buur yu nekk ci àdduna bi yëpp amul benn buur bu fi neexoon bu yëngatu ci dara lu dul leetar ab yonentu yàlla Muhammad fekk na la fa bu fekkee da ngaa teggi ni leetar ba gëm ko maam Khalifa wax na ko soo xottee leetar ba wax na ko soo tuubee wax na ko boo tuubu timit wax na ko délégation yii nag bi ci jiitu mooy ba bani hawazin Bukhari yu tudd na ko Moussa ibnu Uqbata wax na ko ci téere bu ñu tuddee fi Magaasi mu ne yonentu bi sallallahu alayhi bi mu bàyyeekoo taif ci weeru wori ñëw ba jaaraanatu foofa la amee la la la la la dajee njafeel waa banni hawaasin ga ñi lu bari foofa nag la waa banni hawaasin def délégation ñooña booba ñoom gëm nañ dugg ci diina ji bu foo hawaasin muslimina ñëw seen sang ya. mat nañu juróom-ñeent kuréel ci seeni sang ya boo ko jëlee ñi ay góor lañ ñi ñëw nafaru rijal min thalathatin ila asra. nafar bu ko ara waxee rek mooy lu ko lu commencé ñett ba fukk ñooña di bani hawasin bañ defee seen délégation ya fekk yonantu bi ca jaxraanatu nekkoon nañ juróom-ñeenti nit ci seen sang ya. ñu ñëw tuub jaayanteeg yonantu bi wax ak moom booba nag tabaarakallaahu lañ ñëw fekk foofa yonantu bi suma kallamuuhu fa qaalu ya rasulallah inna fii man asabtum al ummuhaati wal axawaati wal ammaati wal xaalaati laka lañ wax yonantu bi ne ko prisonniers yi nga jàpp ci kare bii xam na ki ñoo xam ne say yaay lañ am na ki ñoo xam ne say mbokk lañ am na ki ñoo xam ne say bàjjan lañ am na ki ñoo xam ne say tànta lañ aa ah, yonentu bi fa qaala sa at lu danaa leen ko sàkkul sa at lu bu fekk booba tàbbi na ci njafel gi yonentu bi jàpp keroog la waqat waqaat waqat waqaatil فأي الأمرين أحب إليكم السبا أم المال أم المال قال خيرتنا يا رسول الله بين الحسب والمال فالحسب أحب إلينا ولا نتكلم في شاة ولا بعير فقال أما الذي لبني هاشم فهو لكم وسوف أكلم لكم المسلمين فكلموهم وأظهروا إسلامكم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة أي ظهرة فتكلم فتكلم خطباؤهم فأبلغوا فيه ورغبوا إلى المسلمين في رد sabihim ci la bañ xamalee yonantu bi ne ko ñi nga jàpp say mbokk a ngi ci ay say sœur say yaay a ngi ci say bàjjan say tanta mu ne danaa leen ko sàkkul ca leen laaj ne waaw ñaar yi lu leen ci gënal njafeel yiñ jàpp muy nit ñi ak alal ji ñu ne ko yow yonantu bi daal mbokk gi muy xasaba gi boo ñu gënal alal ji ñun duñ wax ci wàllu gàtt yeeg duñ wax ci wàllu gëlëm yi dara yonantu bi ne a ah lépp loo xam ne ci wàllu gàtt la de ak yi xalal ba nii moom ko nekk ay jullit danaa ci wax ak ñoom su fekkee ne nangu nañ len ko jox baxna buñ len ko jox fekk man waxna rek ah motax mun len sawfa ukallimu lakumul muslimin Yonun bi wax ak ñom ñi feñal seen ak l'islam ba bi julle tu subar ba pare wax ak seen partu prolia ya. ñi wax wax ju rëy xemem lo julit ñi ci ñi delloo len seen njafel yi ci la bi taxaw wa shafaa lahum wa xaddal muslimin alayhi ay radda sabihim yonentu bi taxaw wax ak julit ña ñaan leen ñaax leen ñi delloo njafeel gi ñi jëlee ci banu hawaasin seen délégation bi comme ñëw nañ ci moom di ñaan intervention ibnu ishaqa mu ne jëlee naa ci Omar ibnu Suaybu moom moom jot na ko délégation ba jot na ko ca jaarana fekk ñoom jébbalu nañ ñu ñëw ci yonentu bi ne ko inna ahlun wa ashira wa qad asabna min al balai ma lam yuqaf alayka famnun alayna manna allahu alayka wa qama xatibuhum suhayr ibn sard fa qala ya rasulallah inna lawati fil hadairi min assabaaya xaalaatu xaalaatuka xaala xaalaatuka wa ammaatuka wa kunna yu nag lakka léegi yu kaf lal na lakka a wa anta xayru makfuulin tuma an sadar daal mbir mi xaw naa tàng bi ñëwee daal ibnu isaaqay wax mune omar ibnu shuaib mo jot delegation bani hawasin ci jaxaraana fek jebelu nañ mune yow yonentou bi ñun ay ñoñ lañ tay mbokk lañ ta ñun ni mucc nañ ci nattu yi kon nak na nga ñu xewé yal na la yalla xewé sen discours katba moy sen porte-parole ba di suhayru ibnu sard taxaw na yoy yonentou bi jigen ñi ngay gis ñi lak leen ci njafel gi say tantaa ngi ci ak say bay say bàjjan ak ñi nga xamne yar te yow de yaay gën ci ku yar commencé nak di sadd umnun alayna rasulallahi fi karamin fa innaka almar'u narjuhu wa nadakhiru umnun ala baydatin qad aqaha qadru mas ah, masasta manan shat masasat samluha fi dhriha ghubar khuyaru khuyaru ab qayta lana هنا فأعلى فأبقيت أبقيت لنا الدهر هتافا على حسن على قلوبهم الغماء والغمر كم أنا وايلا من يو ينون تبي يال واي قيبينيو yaakaar nañ ci yow ak xewe waaye waaye nanga nga xewe nen boo xam ne dogalab yàlla bi xaaroon na ko tey mu teqalikoo yow daal desal nga ci ñun ci jamono ci ak njàqare ci suñu xol yi boo dabaatalut xewal aa kon de danañ nekk ñoo xam ne ñu torox la doon yow doom nga woon joo xam ne ju ndaw nga jo xamne dang nampu fi, fi a boba dara xewagutoon xewal jigen ño xamne ne nañ fi di nampal nàmpal ñoo la yar ta rafetal sa yar waxa waxa wax ba ab yaat ya jeex lu bare bare raaye ya bu rafet la ba yonentu bi degge wayi ci la wax ne wali Abdul muttalibi fa huwa lakum wa qala quraysh ma kana lana فهو لله ولرسوله وقالت أنصار ما كان لنا فهو لله ولرسوله ndax way yi dafa rafet bi ko yonent bi déggee la ne ha man de lépp loo xam ne maa ko moomoon aa loola de delloo naa ko yàlla ak yonentoom lépp loo xam ne maa ko moomoon Abdul Mutalib moom ko lépp delloo naa leen ko Quraysh si jigéen ñëpp jug waa Quraysh si taxaw ne ko lépp luñ momoon delloo nañ ko yàlla ak yow waa lansaar taxaw ne lépp luñ moomoon ci njafeel gi delloo nañ ko yàlla ak ab yonentoom yonentu bi am jàmm lañ bëggoon yonentu bi defal na leen ko lii mooy première délégation bi bi njëkk a recevoir maa ngi leen recevoir ca jaaraanatu ba ñëwee lañ bëggoon mooy njafeel yooya nga xam ne jàppoon nañ leen ci xare ba comme ñoom tuub nañ dugg ci diina ji nañ leen delloowaat seen alal ya ñi mën koo yóbbuwaale yonentu bi bañ paree Zuhayru way wayam rafet yi um nun alayna dee nga rasulallahi fi karamin fa innaka al narjuhu wa naddaqiru umnan ala baydatin qad aqaha qadru fa sattatat samluha fi fi dëhriha xuyaru abqayta lana dëhra hatta ala xusanin على قلوبهم الغماء والغمر إن لم تدركهم نعماء تنصرها يا أرجح الناس حلما حين تختبر حين تختبر حين تختبر إذ أنت طفل صغير كنت تردعها آه إذ فودك يملأ عمرا محضها درر ويرفد له ويرفد يدو يرم ba mu paree yonantu bi ne lu ma moomoon maag Abdul Muttalib ba nii Abdul Muttalib jox naa leen ko Lansaar ne ko luñ moomoon jox nañ la ko yàgg yàlla Quraysh ne liñ moomoon jox nañ la ko yàgg yàlla yonantu bi leen seen alal ya ñu am jàmm kontaan kooku mooy première délégation bu ñëwal yonantu bi di Bani Hawasin moom la maam Khalifa njëkk a way ci délégation ya fanweeri délégation la ak juróom bu njëkk bi moom lay wax ne fa awwalul wufuudi fil mawaahibi وفد هوازن أتى إلى النبي بعد الرجوع من حنين بالسبا فحسنوا أشعارهم والقطباء فحسنوا أشعارهم والقطباء رد إليهم بعد ذا السباء وفيه أخت المصطفى الشيماء foofa sax ci la ndeysaanam mbokkam nampaale ma Shaymaa waxoon naa la ko ca ma ngay ma ngay wax di saalik ne man de su fekkoon nag Kaysara ma jàpp wala Kisra tey sama affaire baax ndax seen yonantu bi maag moom bokk nañ fu ñuy nàmpaal ba ko yonantu bi waxee mu am lu mu fàttaliku fu ko yonantu bi mos a mat ci la ko yonantu bi libéré may ko ñaari jaam benn ba jigéen la benn ba makkuwul di góor mu def ko muy jëkkëram mu xam ak moom ay doom moom mu mujj jébbalu dugg ci diina ji kenn du yonantu ci matal ko ak mën a rafetal délégation ñaareel ba mooy délégation saqiif délégation saqiif ba mooy bu ñaareel saqiif gannaaw wafdu saqiif mi ngi am gannaaw bi yonantu bi ñëwee bàyyeekoo tabuuk ci weeru kor la xew ibnu saadu ak ibnu isxaqa wax na ko ñoom ñëpp d'accord nañ ci ba yonentu bi ñu ne ba yonentu bàyyi koo taayifa ñu ne ci la ñëw ah ci la yonentu bi ne ci la ci la ci yonentu ba laman sarafa min taif qila lahu ya rasulullah ud'u ala saqif fa qaala allahuma ahdi saqifan wati bihi muslimin bi yonentu bi bàyyi koo taayif ñii ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu bàyyi koo ci lañ ne ko ñaanalal waa saqiif mu ne yow yàlla yàlla nga gindi waa saqiif yàlla nañ ñëw ci man te bu ñuy ñëw na fekk ñi jébbalu dugg ci diina ji léegi nag bi yonent bi wëlbatikoo rek ci la urwatu ibnu mas'ud ibnu muattibin topp jeexitalam doomi malik la ibnu kaabu ibnu omar ibnu saad ibnu awfu ibnu thaqif mooy bàyyi taxu waajuru muqiiratu bnu Saaba yaayam a ngi tudd subayatu bintu abdi shamsin ibnu abdil manaaf kenn la ci ña gën a màgg ci seen famille ba kenn la ki ñi alquran di wax ne ala rajulin min al qaryatayni azim naatu sawa bi la moo tax waxut azimay ni aa ah, waxut azimatayni ala ala rajulin min al qaryatayni azim su ko defee kooku moom la alquran di wax loolu lu taa yàlla yónni waay kenn ki ñaari sang yi ci ñaari dëkk yi nekk ci ñaari sang yi nekk ci ñaari dëkk yi nag moom la moom lañ ca namu mooy xorwatu moomu kilifa gu mag la woon ibnu abbas mu ne ak mbooloo ibnu abbas mu ne walid maanaam qaala ibnu abbas wa jamaatun aradul walid ibnu mughira min ahli makkata ñu ngi ci namu mu ala qaryatin ala rajulin min al qaryatayni azim kenn ka mooy urwatu kenn ka mooy walid ibnu mughira kii nekk ca taayif di urwatu walid ibnu mughira nekk ca makka léegi nag ñi jot ci yonantu bi njëkk muy digg madina lañ ko jot si fekk ba ba ñu ba ñu dab si yonantu bàyyi ko taayif yonantu bi ñaanam ngee foor moo leen buurloo booba yonantu bi xeg seegut sax madina ñoom ñi xeg si ba hexé ibnu ishaq moy wax momu urwatu jébbalu wa saalu an yarja ila qawmihi bil islam falama asrafa lahum ala uliyatin a ghurfatin wa qad da'awum ila al islam wa azhara lahum dinahu ramawhu bin nabli min kulli wajhin fa asabahu sahmun fa qatalahu thumma aqamat thaqiifu bada qatlihi ashhuran summa innahum itamaru fi ma baynahum wa raaw annahum laa taaqata lahum bi xarbin min xawlihim min al wa qad baayaxu wa aslamu léegi nag xorwatu mii ñu ne moo jiite woon délégation ba ñi dab yonantu bi mu bàyyeekoo tabuuk ñi ne ñi ne mi ngi bàyyeekoo taayifa waaye lu ca mën a xam moom ba mu ñëwee rek la tuub dugg ci diina ci rafetal ak tuubam yonentu bi sàkku ne ko dellul ci nit ña nga xooleen ci lislaam ba mu ñëwee mu jël benn tooj gu gudd taxaw ca nitam ñëw wër ko mun leen ñëw leen ngeen dem tuubi xooleen ci lislaam wax leen rafet ak lislaam nitam ña fekk ko fa moo doon seen ab sang waaye dañ ko faa fekk sànni koy fett ba mujj ray ko waaye ba tey kom xam na lislaam dee na rek texe na comme dee na ci lislaam rek na sant yàlla léegi nag gannaaw si gi ñu toog ay weer xam ne ñoom ñii buñ tuubu dañu perte mënuñoo xeex ak arab yi te arab yëpp tuub nañ ci la ñu mujj nag ñu dogu yónnee ci yonantu ba ñu yónni abda yaa lii lin male nga xam ne ndeysaan keroog ba yonantu bi demee foofa di hut ku ko fat moom mii moo ko doon xiirtal dof ca moom ak xale yarut ya ak jigéen ñu xamut kilifa ya abdou yaa lin ak masoud ak habib jàngoon nañ ko ca Hamsiya maam Khalifa ba ca yoonu taayifam wawa gannaaw bi Xadijatu génne àdduna ak Abu Talib ñi yónni Abdu yaa liilin ak ñaar ci seeni sang ya kenn ka mooy Hakam ibnu Omar ibnu Saad ibnu Awf ibnu Thaqif noonu la ko waxee kenn ka moo tudd Surahbil ñu yónni ko tabaarakallaahu Surahbil ibnu Gaylaan ibnu Maatab ibnu malik athaqafiyu ñi ñëw taayif wàcc ibnu saad mu ne taayif ñëw nañ ah ànd ànd nañ mbooloo ñu ñëw nag tabaarakallaahu war a ñëw ci yonantu bi waaye lu ca mën a xam daal loolu ñoom gën a ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu saad mu ne nasala taayif walahu soxba maata sanata sittina wa thalatha min bani malik usmaan ibnu abil as ibnu bisri tabarakallah legi mu ne moom mii ba muy ñëw ti wàcc dafa and ak mbolo moom moy ku ñaarel ki di Saraxbiil waye mi ngi genn aduna ba gaday gi amé juróom benn fukki at ak ñett su ko defé mom mi ngi bokku ci bani Malik muy Usmaan moy Mamam ibnu abil hasi ibnu bisr ibnu ubayd ibnu dihman ibnu as-saqafi su ko defé mom dafa wacc ali ak bani basra jébbalu na moom nag léegi nag waa saqiif ba ñu ñëwee yonantu bi kim jiitaloon ci ñoom ci taayif saxal ko fa mooy aboubacar mu jëful mu mu jël xomar ne ko demal nga jàngal diine jiite waa Bahrayn yi ak Oman léegi nag fa lay nekk léegi mu ba mu mujj génn àdduna noonu la noonu la mujj def moo tax nasilu basra la aslama fi di thaqif moom moomu di Surahbil moom moo jiite woon gaaye ba mu ñëwee yonent bi moom la bàyyi woon taayif saxal ko fa ne ko des fii nga jàngal leen seen diine comme tuub nga yonent bi génn àdduna Aboubacar wutal ko fa wutal wutal ko fa ne ko des fa nga nekk seen kilifa Omar moom bi mu ñëwee da ko yóbbu Bahrayn ak Oman mu jiite leen ba ca xatam juróom ci gàddaay gi mu jigi mu dem dëkki Basra moom surax biil gannaaw si gi mu génn àdduna bi gàddaay gi amee juróom fukki at ñi ne juróom fukki at ak benn ci la génn àdduna wa kaana huwa alladi manaa saqifan ala riddati waa saqif bi yonent bi génne àdduna dañoo bëggoon a murtat moo leen teree murtat moo discours ak ñoom ne leen antum axirul arabi islaaman fala takunu awwalahum irtidadan aka fasaa mu ne yéen waa saqiif gii man surax biil di seen mbokk di seen kilifa maa ngi leen di wax ne arab yi yëpp yéen a ci mujj a tuub kon waaye bu leen njëkk a tubbi bu leen ko nangu mukk waaye bu leen njëkk a tubbi waay ndeysaanam loolu la leen wax a fala takunu awwalahum irtidadan wa jaaxanu annahu shahida aminata lama wulidat nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ala hadha yakunu haasha nahwa min mi'atin wa ishirin sana ñu ne jamono ji yonantu bi di juddu yaayam ju tedd ja amina di ko jur moom fekkee na ko moo tax kon bu fekkee wax jooju wér na ko guddu fan la lu mu néew néew dund na téeméeri at ak ñaar fukk kon délégation ña àndoon moo tax ma ma la koy laytaayal ñooñu di la wax kenn ku ne wax naa la ñeent lañ jiitaloon wax naa la abdou yaa lilin mang ca yónni nañ ko ca wax naa la timit tabaarakallaahu surah bil mii laa la farañ fànceel ay mbiram ah léegi nag boo demee jëlee nañ ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadis muslim solo na ko sunanu abu daawud yi andi na ko mu ne aw mu ne aw subnu awfin ibnu jabir ibnu sufyan ibnu abdiya liilin abdiya liilin moom la lay wax histoire am su ko defee asalim loolu mooy askanam noonu la ko ibnu xibaan andee nekkoon na tamit ci délégation saqif bi ak numayru ibnu manam ak numayru ibnu xursata ibnu rabiata ma ngi ca ibnu haris ibnu xubaybi ibnu haris ibnu xutay xutaytu ibnu jusumin ibnu thaqif noonu la ibnu hiban andee askanam abu omar mu ne moom dafa allié woon ak bani kaabu moom moomu tabaarakallaahu di awsu awsu ibnu awf moomu legi nak lu ci mën xam ba ñëwalee yonentu bi ñom délégation saqiif ta yonentu bi ñaanon na yalla jubal leen ah ñi fekk yonentu bi sallallahu alaihi wasallam. sallam ñi ngi ko sampal ben bergen ci walu jakam ja pegg jakam wala samp ben bergen boba Khalid ibnu Sa'id, ibnu Asi ibnu Umayata ibnu Abdu Samshin ibnu abdul manaf mom mi ngi bokku ci ñit jëk tuub ci diina ji qila kana rabi'an ñi ne mo jël de de 4e position ci diina ñi ne juroomel la jël ñi ne kana rabi'an ñi ne aw khamisan mo daan dox ci seen digënté ak digënté yonentu bi ak ñoom manam luñ bëgg wax ñoom wa taif yi mom mi lañ koy wax mom mu ñew wax ak bi sallallahu alaihi wasallam léegi nag ñëw nañ muy dox seen diggante ba ñu jébbalu xatta aslamu ñi jàllar bi ko bind benn pat muy benn leetar booba xaalit mi dox seen diggante ak yonent bi bind leetar ba bokk na ci li leen yonent bi laajoon an yaddaa lahumu taaxiya wahiya laata laa yahdimuha salaasa siniin fa aba alayhim a ah, illa an yabasa aba sufyaan ibn harb wa mughiratu ibnu sha'ba yëhdimaaniha bañ ñëwee siñ ak yonantu bi patt d'accord ak moom tuub dugg ci diina ji bokk na ci li leen yonantu waxoon buñ fa bàyyeeti laata muy taaxiya taaxiya muy turu laata nañ ko mabbu ñoom ñu ne ko déedéet dañ ko faa bëgg a bàyyi fii ba ñetti xat yonentu bi ne loolu mënu ma leen koo muñal après ci la yonentu bi yónni abu Sufyan? ah mu ànd ak muqiratu ibnu saaba ñoom ñaar ñoo dem ñi mapp këram googa di taaxee muy laata ci délégation bi bokk na ci timit li leen yonentu bi laajoon wa kaana fii ma saaluhu maa dalika أن يعافيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم إلا بأيديهم كسروا أوثانهم بأيديكم كسروا أوثانكم بأيديكم وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه léegi nag bokk na ci lañ laaj ne ko d'accord nañ dugg ci diina ji wax nañ laa ilaha illallah ba pare d'accord nañ mais nag dañ lay ñaan daal julli moom duñ ko mën a def nañ nga nga jéggal ñu julli <laughs> ndaw ñu féex yonentu bi ne diina ju xamul julli kay du diine diine kay la koy taaral mooy julli su ngeen bëggee bokk nii da ngeen ñaareel ba yonentu bi ne leen tamit seen xërëm yooya des fa yéen a koy mabbu ci seen loxoy bopp dem leen ngeen mabbu ko yéen a koy toj d'accord nañ loola waaye daal dañoo bëggoon mu baaxal leen julli ta nga xamne ne julli neexu a xenu de ñi bëggoon nañu yoonu tubi xenul leen julli mëna du fi am dem leen ngeen julli dara la ci mënu dem leen ngeen julli motax wa kana fi ma sa'aluhu ma dhalika an yu'fiyahum an min salati wa an la yuksiru awsanahum illa bi aydihim fa qala saa sallam kathiru awthaanakum bi aydikum wa amma salatu fala xayra fi diinin la salatu fihi lii ñi d'accord ca bañ jébbaloo nag bind leetar ba yonantu bi kim jëloon mu nekk seen njiit di leen jàngal seen diine nekk seen sëriñ mooy Ousmane ibnu Abil Asi la yonantu bi ne moom laaj leen di jox délégué ko mu nekk seen sëriñ nekk seen kilifa booba nag xat yu néew la xam ku xale bu ndaw la ñaar fukki atam sa presque rafetul waaye ku xiir la ci dégg fiq dafa déggoon fiq te xiroon lool ki jàng alquran man ko lool ñi dellu ci seen réew ya ànd nañu abu sufyan ak muqiratu ibnu shaba ñoom ñaar bañ demee lañ mabbu xiram gii ñu tuddee taqiya yeneen xiram nga ya ca des yonoon too wax ne yéen mabbal leen ko seen bopp julli gi ngeen may ñaan duma leen ko mën a may dem leen ngeen julli ji omar ibnu manam ah, omar ibnu asi def naa ko muy seen kilifa moo leen jàngal seen diine léegi nag muqiratu ibnu shaba ba mu hegsee ca dëkk ba la ca kaw xërëm nga jël benn sémmañ pour bëgg a mabbu xërëm nga jigéen génn jigéen jigéenu waa saqiifa ya génn ña ngay jooy ah mu xiiratu nag jàpp xërëm nga damm ko toj ko su ko defee mabbu ko ba mu raase jigéen ñay jooy mu ne ngeen ci mënut yonentu bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko waxoon bind na ko mi ngi nii te ko bindoon xarit la seen mbokk la xaalit la moo wax mu jeex wa axada muxiira baxda an kassaraha maalaha wa xulayaha bi nga xamee nag moom mabbu na ko xalaj yam fa fekkoon yëpp mu andi ko jël ko ak yam fa fekkoon ay ay ay xulal lañ fa fekkoon def ko ko su ko defee nag loolu moo doon leetaru yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne binduloon na la ko leetar ba yonantu bi bindoon ne nañ ko bind mu jëm ci ñoom mu signé koog ñoom ليتر باغي ني مام خليفه اندي نكو سي تيريم عطايا دا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المؤمنين الى المؤمنين ان عداه وجه وصيده وصيده حرام لا يعد لا يعدد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنسع ثيابه فإن تعدى ذلك أي امتنع من تسليم ثيابه فإنه يؤخذ آه فليبلغ النبي محمد وأن هذا أمر النبي محمد وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد ابن عبد الله فلا يتعداه أحد آه فيظلم نفسه fii ma amara bihi muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy nasu risaala kon délégation boobu nga xam ne mooy délégation Thaqif di Taïfa seen mbir jeex na ñooy deuxième délégation tabaarakallaahu ñu ñëw ñoo mujj tuub ci arab yi wax naa la ko ñeenti sang ya ñu yónni woon ñu ñëw ci yonantu bi Urwatu jiite leen Urwatu dem di leen woo ci diina ji ñu ray ko gannaaw si nag lañ xam ne ca àll la bu ñu fi nekkee tamit dañuy wéet arab yëpp tuub nañ ñu mu ngi def délégation ñëw tuub ci yonantu bi yonantu bi sartal leen ne taaqiya dañ koy màbb xebal mu xiratub nu saaba tabaarakallaahu xaalid ñoom ñaar ngi dem màbbi ko waaye tamit digal leen a yeneen xiram ya ci des koy màbbal seen bopp ñu ne ko d'accord nañ ci diine ji waaye daal may ñu julli mu ne diine ju xamul julli kenn mënu ko tuddee diine dem leen ngeen di julli ji delluwaat nañ ci seen nit ña tabaarakallaahu xommatu nañ tabaarakallaahu waaye daal dafa mel ni dañoo mel ni kuñ forcé rek ñàkk pexe moo leen tax a tuub waaye lu ci mën di xam daal comme tuub lañ baatu seede bi nañ rafet njort ci ñoom moom la maam xalifa ne wafdu saqifin baada mawtil alami sayyiduhum urwatu dil qadri sami atawhu bil islaami mus'inin lakinnahum alayhi mukrahun kon nii la seen mbir demee xamna naa boo ma toppee suba ci waxtu wi ci kartanal yalla ma ñew ak yow ci ñetteeli délégation bi ñettelu délégation bi nak moy bani amir ñoo ñewal yonent bi tabarakallah ñom ñooñu nag laay war a wax suba lepp lo xamne ne mo aju won ci ñom ñoom ñooñu muy wafdu bani amir ni ko ishaqa ibnu ishaqa waxe ba yonent bàyyi ko tëbu rek saqif jebalu jaayante suko defé nak délégation yi di bàyyi ko côté bu nekk di ñëw di tuub si di tuub si di tuub si ba noo xamil ki lañ ñëw waaye loolu mooy nekk suñ dar soob suba bi yàlla na yàlla yóbbuñu ci insha allah wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu